Assalamualaikum, sen sœur Salihat Salam mo ñu bëgg waxtaan ak yeen waxtaan woo gaaw wo xamne wax dëgg paré wu mako woon vraiment mais euh, dañu moomatuma sama bop en fait damay ñëw rek ci ñaari axe damay sëddale waxtaan mi en deux parties kan moy Moussa Diop ab way la bo xamne Samba Soura Bali la bo xamne ni toppoon na fi Abdoulaye Wade ay jamono ndax mom PS la bokk message Diop PS la woon toppoon na fi maître Abdoulaye Wade pour mu nommé ko consul Abdoulaye Wade xool ko xam ne manquant la mu teg ko ne de côté boobaa léegi liggéey yu salte rek yooyu lay def yu tuuti yu manqué waaye nag bu ñu yàq suñu énergie ci lu bëri bëri nañu focus jëm ci li nga xam ne mooy l'essentiel ñu bañ a topp détail yooyu lii diversion la euh, moom waaye la soo xam ne tekkiwul dara ba wax dëgg yàlla war a tax sax ñu yàq suñu énergie jëmale ko ci moom xam nga nit koo xam ne la ca sa tubay baaxul euh, yàlla def na mënoo jur doom yàlla def na lu mat juróomi doom adopté nga ko euh, wax dëgg yàlla toute une communauté nga nga di leen offensé ci ñàkk fayda yoo xam ne nii yaa ngi ko déggee ci sa patron ñun tam bu ko defee ñu jël li nga xam ne mooy essentiel bi teg ko ne de côté topp ko ci matadi googu bu yàggee dañu mel ne moom sëñ bi doon nag ki mu doon ba pare ñun il faut aussi ñu jéem a xam ne lu gën a yées lii dinañ ko dégg ci gouvernement Macky Sall il faut ñu ñu xam ko ñu teel a préparé suñu bopp ci loolu te it du ñu mën di def en tout cas moment bii ñu toll mënuñu lu waay wax ñu jóg tontu la. du dëgg am na foo xam ne naam buñ fa àggee dañuy duma ndax damay faral di ko wax bi fi maam Cheikh Ibra di ñëw ku daan dem ci sëriñ bu mag bi kenn du la wax ne nii ngay toogee ndax boo xalaatee maam Cheikh Ibra xam nii nga fa war a toogee waaye ñun suñu cat mooy dafa am lu rax ci ñun mooy dafa am ñoo xam ne ay sëtu sëriñ Touba la am lu ñuy doxalee ba tax léegi am ñu yépp yoon wi lii nag mooy dëgg man samay wax du neex. am na ñoo xam ne fa ñu woon bu ñu fa nekkoon ba tey lii du am waaye boo xoolee ñi gën di wegadi yoonu murit mu ngi gën di bëri dafa am lu ko waral xam nga sëñ am satu son bu mais doo jaar ci moom yoonu sëriñ Touba gi xam nga magam jooju sëñ Cheikh Say doo fa jaar di yépp yoonu sëriñ Touba xam nga sëñ Moustapha Saliou doo fa jaar di yépp yoonu sëriñ Touba sëñ Mamour Mourtada Mbacke mi nga xam ne il dérange beaucoup kenn du jaar ci moom di yëpp yoonu Serigne Touba ñoom xam nañu ne sëriñ Touba faggul na leen seen biir ak seen biti seen démb seen suba ak seen ëllëg yomal xiyaam gañu ñu jëm ñooñu doyloo nañu li tax sëriñ Touba liggéey ba jàmbur yi di ci jariñoo ba ñoom ñu sant Mbàkke danañ ca jariñu Moussa Diop li la naqari kalaame ko yàlla tey jii boo toogoon di xeex ak Mbàkke Mbàkke ku ñëw bu laajtee kii nu mu sant ñu ne ko Mbàkke ñu laaj nu mu sant ñu ne ko Jóob dañ lay duma ba nga bëgg a dee daan ne la xanaa xamoo ne kii Mbàkke la sant loolu la yàlla dogal du man du yow yàlla la boo amee lu la naqari nag ah yàllam mi la indi ci kaw suuf sàkkal la ndey sàkkal la baay moom ngay kalaame wax dëgg neex yàlla waaye nag du du du ñi nga xam ne nii dañoo yeewu di di di njabootu Serigne Touba wax dëgg yàlla euh, bénédiction Serigne Touba mooy daw ci ñoom kooku mënoo ci dara wax dëgg neex yàlla lii xew boo gisee piège bi Moussa Diop wax na ko ñu invité ko TFM mu wax lu ni mel mu demaat këram waxaat lu ni mel kon. lu mu pare la ndax nag man information yi ma am ca waxtu ba ca seconde ba mooy Macky Sall ci boppam moo toog soxnaam yëkkati na téléphone am na soxna kilifa gu mu woobee Touba ne ko lekk ngeen suñu xaalis te liggéey lu leen ñu dara wax lu rëy mënumaa jaar ci tuuru soxna si nag waaye loolu lu ama am la Macky Sall di wax la mu dépensé wax na ba tudd sëñ Bass Abdou Khadre ne ko sëñ Bass Abdou Khadre dafa ne woon carrément fii nooy na te bu ñu àgg ci di dinañ xam ne fii nooy na moo ko wax Macky Sall moo wax loolu tudd na Touba teg ci aw saaga wu rëy Macky Sall bu falowaatee dina def Touba loo xam ne dootu leen ko fàtte ba àddina di tukki bu ngeen xamoon li leen Macky Sall di waajal mbiru Moussa Diop nii da ngeen koy teg fii ci suuf te jàll vers l'essentiel Macky Sall nee na bu campagne yi jàllee ba mu toogaat nee na mbàkke mbàkke bu ñëw ci moom di ko wax waxu passeport dootoo ko dolleeti da ngeen defe na dañoo bari wax rek di wax yéen nañ leen guddi yéen nañ leen bëccëg yëm leen ci li leen seen maam jox am ngeen nag droit def lu leen neex waaye au moins euh, na ànd ak na ànd tuuti dignité ndax nag. taalibe Serigne Touba yi dañu libre ah. ñoo moom seen bopp de yéen a déggal seen bopp fi ndigal du fi jóg fii ndigal du fi jib tàllal loxo rekk ñu ñaan kon murid yi léegi dañu wuti ak murid yee woon démb parce que léegi si li am amutoon démb lii suñu sang yi sañ di ko def léegi defuñu ko woon démb ak barki démb moo tax taalibe tey yi bokkuñu ak démb yi yàlla may ñu nag ñu am xalifa boo xam ne gàcce ngaa laa ma ku nekk bëgg nga ko waaye ñun la ko yàlla may Cheikh Mountakha Bachir ci maandu gi ci dignité gi ci personnalité gi waaye ci pare démb tey soog a dikk moom xalifa changé wu ko de suñu sang bi sa sayar soxna bosami ci baar yi dafa pare démb de nii mu mel du ko judduwaale de waaye dafa daw jànge dafa daw wuti xam-xam dafa teel a liggéey teel a barkeel teel a tedd waaye dafa tarbiyu magam yi fi nekkoon tarbiyu baayam yi fi nekkoon gàcce ngaa laa ma zéro faute kooku kenn du ko wax loolu lu dul noonu dégg waxam ji daw la yaram damay maslaa waaye taluma leen Serigne Touba laa tal waaw kooku ku ko bëgg noppal xanaa déggu leen waxu sëñ Maam Mor nee na ko Mbàkke yal na la yàlla musal aar la ci ñi nga xam ne bokkuñu ci te kenn mënu leen cee génne mooy ñi bokk ci njaboot gi te Sëñ tubaab bu dikkaatoon yedd leen kon ñu xamee ko noonu te ñu góor góorlu te xam suñu bopp gannaaw nag ak taalibe du yedd sàngam taalibe ba day te am fu lii mooy dëkk xam seen bopp kooku mooy li nga xam ne wax dëgg yàlla dama ko bëggoon tënk rek ci mbiru Moussa Diop lii lii nga xam ne wax na ko dañ ko ko sant Macky Sall ko wax ci digg Sall moom mu toog dégg ko. léegi ñun bu ñu defee erreur bu toll ne waaw ah lii daf ko wax jëmale ko Touba te moom pulaar la kon ñun tam nañu wax nangam tukulóot yi déedéet affaire bi du foofu de li mu wax moom la concerné moom la engagé. du affaireu ethnie déedéet du affaireu tarixa déedéet c'est politik nañu ko tontu ci politik waaye fa mu ko wax jëmale ko foofa nag moo spécial il faut ñu xamal ko ne ko foofa dafa spécial sëñ Tuubaa moo pare démb loolu daal laa bëgg nga xam ko ba àddina di tukki ba yàlla di lem suuf di lem asamaan Tuubaa sera spécial sëñ Tuubaa la yàlla fay te naxu ko waaye ba muy liggéeyal sama borom ak caa boole jom na mu def démb yëkkati tubaab bi teg ci suuf noonu la leen murid defaat wan leen ne ay bañkat lañu yëkkati leen teg ci suuf on va pas nous forcer Macky Sall murid yi kenn du leen forcer Macky Sall ndax li ko waral mooy. bu fekkee ne yaa ngi dugg ci biir jumaay Serigne Touba ji dawal sa ay motard sa ay oto sa yu kenn xamul dugg ci biir jumaa ji Cheikh Sidi Mokhtar yal na yàlla yokk ay leeram dugg fa tànk ndax warmaal jumaa ji jumaa joo xam ne Cheikh Saliou Mbacké même ci biir Mercedes am bu daan romb ba jubali foofu di dindi mbaxanaam summi dàllam te pourtant mi ngi ci biir oto bi kon moom xam ne la nekk foofu Serigne Fallou am na lu mu daan wax ci boori jumaa ji murid yi di gisal seen bopp ngay war warmaal jumaa ji ak la ko wër ak njabootu Serigne tubaab bi nga jël doomi sëñ daa Mbàkke tëj ci kaso bi jël nga Assane Mbàkke tëj ci kaso bi yow daal nee nga tu vas bouffer des Mbàkke Mbàkke tant que tu seras de ce pays waaw Mouride yi tamit sañ nañ la woon ne la ñun bëgguñu la pourtant yow am nga fi ay sëti sëñ Touba yoo xam ne àddina bépp xam nañu ne ci yow la ñu féete mais loolu aayul mais tamit bàyyi leen ñu ñun tamit ñu choisir la ñu neex Macky Sall nangul ñu ne bëgguñu la am nañu droit boobu léegi kon léegi comme que noonu la Casamance bi nga xam ne voté nañu Ousmane Sonko na nga fexe ba boo paree na leen génne ci carte du Sénégal ah. waaw na nga fexe aussi ba Fouta kon jox ko indépendance am bu ko defee ñu xam ne waa Fouta votal nañ la kon Fouta dafay spécial féete ak yow fee nga génne Dakar ak Kaolack ak région ko de côté nga la li wajjilaahi karim ñun ñëpp tontu nañu Moussa Diop doy na ni jublu ci suñuy mbir sa Seck maa ngi lay wowati une deuxième fois xoolal sa frère sa rak hmm, hmm, Sonko waxtaan leen seet leen nu ngeen di def demal seeti xalifa Idrissa remue-toi yëngatul seetal xalifa seetal sa papa Abdoulaye Wade togg leen waxtaan leen consensus na am concertation na am ngeen waxtaan bu ko defee ngeen mën a délivrer peuple du Sénégal taxaw leen def leen seen gouvernement parallèle ngeen waccal ma Macedo bi Dedaado bi Lamde bi Sédara bi nga xam ne mooy Moussa Diop ñu ñu ñu jàll ci yi nga xam ne moo gën a sérieux maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen wax góor góorlu leen le meilleur reste à venir Macky Sall duñu moom jabaram du ñu moom dégg nga ko jox xeexal peuple bi déedéet journaliste ba ca kaw la ëpp ca sëriñ si ñëpp bootu nañ ci ginnaaw Macky Sall ñun nag ñoo mën a jóg xeexal suñu bopp kenn duñu ko defal kenn Macky Sall bu reyee ñaar ñett du rey juróom kon jërë ngeen jëf maa ngi leen di bàyyi